الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكي وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ginnaaw bañ leen nuyoo ziyaara leen tere sëriñ tuuba bi tudd tasawuru sihaar ila jinaani lillahi til anhaar sëriñ bi nag da koo defa ndaw ñi mu nekk seenum yóbbul ñu mel ne ku nekk cib tukki day laaj am yóbbul mu defal leen téere bi ngir mu doon seenum yóbbal téere bi nag sëriñ bi da koo xaaj ci ñetti xaaj muy al iman al islam ak al ihsan dana koy faral di woo at tawxiidu wal fiqhu wa tasawuf tawxiid moom mooy ni ngay gëmee yàlla ni nga war a wéetale yàlla def ko moom rek muy kenn moom lay jàngale bu ñaareel bi fiq moo lay wax nooy womatoo ci sa wàllu jaamu yàlla noo koy defee bu ñetteel ba te mooy tasawuf te mooy ihsaan moom moo lay wax ni nga war a sellale sa jaamu yàlla lépp yàlla rek tax looy def yàlla rek tax loolu mooy ihsaan ñetti xaajoo yi moom la ci sëriñ bi jàngale téere bi nag mi ngi tàmbalee fii ñu koy firee ni ko mag ñi daan firee rek wax benn baat firi ko su noppee daan nangam da ci jublu kon fii la tàmbalee aawdu danaa muslu billahi ca yàlla من الشيطان كالشيطان الرجيم كريكون جم loolu mooy yow yàlla maa lay ñaan nga musal ma ci seytaane bi nga xam ne danga koo dàq sa yërmande audu danaa muslu billaahi ca yàlla min ashaytaani ci seytaane arrajimi karikunu jam wa inniya naka man uiduha danaa muslul bika ci yow wa durriyataha ak ay chatam min ashaytaani ca saytaane arrajimi ka di kunu jam loolu yaa ngi koy fekk ca suuratu ali imran soxna imran moo ko doon wax daa nadiiroon ne bu amee doom ju góor da yóbbu baytil maqdis mu doon ab jaamukatu yàlla waaye ba nga xamee ne yàlla dogal na ne mu doon jigéen tamay sayyidata maryam daan ne yàlla kat góor laa nasiiroon waaye ba muy jigéen nit lépp baax na moo tax mu ne wa inni samaytuha Maryam ci la ñaane nag ne wa inni u'iiduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytaani rajiim yàlla maa ngi lay ñaan Maryam mii nga musulal ma ko musul ay sëtam ci saytaane ba duñ ko mënal dara loolu na day day mel ne yàlla defal na ko ndax moom mooy yaayu Iisa ibnu Maryam kon moo tax wa indiya naka man aiduha danaa ko musl danaa muslul ko dika ci yow wa durriyata ak aishatam ay satam min ashaytaani ci shaytaani arrajimi kadikunu jam rabbi ya sama boroom a'udhu dana muslu bika ci yow min amazati ash-shayatin ci jax jax ash shaytaani yàlla ma ngi lay ñaan nga musal ma ci mi nga xam day jax-jaxal nit ki di ko yakal wal jaamu yàlla وأعوذ دنا مسلو بك يا ربي يا سما برم أي يحضروني بامي تيوي سمي بير ما لا نياني نيو مسلم الشيطان با لوماي ديف لون ديف بوفا تيوي داخ موم بو تيوي داي ياق لي لي تامت يان كوي فيك سي سورة المؤمنون نخني برام بي موكو ديغالون يا نبي صلى الله عليه وسلم موكاي واخ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني أه لمن وإني أعوذها بك وتريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بارنا لول كو سيرن بي دي اندي تي اي ميندم ديكو تامبالي تي اي ميندم بارنا لول كون لول موي تامبالي بي دا باخو نا كوي تامبالي دارا موي لو باخ تامبالي كو بسم الله الرحمن الرحيم maanaam mu teg ci bismillaahi ci turu yàlla lay tàmbalee sama wax arrahmaani kay aji xéewale mboolem waa àdduna arrahimi kay aji jagleel yërmandem ku ko soob ci àllaaxira wala nga ne kay aji soob ci àllaaxira waaw maa ngi tàmbalee téere bi ci turu yàlla mi nga xam ne mooy xéewale mboolem waa àdduna fii ci àdduna moom amul kii yéefar la wala jullit la amul xaaj ak seen waaye àllaaxira nag ku ko soob rek la fay xéewale daan jaamu kon bismillaahi rahmaani rahim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni képp kuy tàmbali mbir tàmbalee ko bismillaahi rahmaani rahim yàlla dana ci def barke waaw ci waa Maalik tamit muy ngir mi nekk eh, li li fa gën a not mooy boo defee mbir te tàmbali ko ci bismillaahi rahmaani rahim bu dee lu war a lekk deesu ko lekk kon bismillaahi rahmaani rahim day am day doon daa nekk lu am solo moo sëriñ bi indi ko ci tàmbali téere bi kon ñu baamtuwaat mën nañu yem foofu ba ko danaa muslu billaahi ca yàlla mina shaytaani ca shaytaani arrajiimi kadikunu jam wa inniya naka man u'iduha danaa muslul ko bika ci yow wa durriyataha ak ay satam mina shaytaani ci shaytaani arrajiimi jam rabbi yow sama baroom a'udhu danaa muslu بكتيو من همزات الشياطين تجه دخل الشيطان يا وأعوذ دنا مسلو بكتيو ربي يا صبرم أي يحضروني بمتى وسمين بير بسم الله تطر يا لا تعمل السماي وح الرحمن كأجي خيول بولم وأدنى الرحيم كأجي خيول كوصوك تالآخرة